ma fi ngay wax euh, président Macky Sall man foofu laa bëgg a jëlee sax parce que am na ñu nañ yow ak président Macky Sall am lu ngeen di rumandaat si suuf. non kooku nag moom. jàpp nañ ne sax yow yow la ñuy waaj a ngémb de yóbbu la présidentielle nga nekk. Euh, koo xamante président Macky moo lay. ngémb même bu fekkee ne nit ñi. li ma lay wax mooy. Hmm. lii téere alxuraan la. barke salaatul fatiha président Macky Sall mënu ma la wax kañ ko gis. wala kañ ko gis téléphone tamit Euh, président Macky Sall la dernière fois que moi ak téléphone. c'était au sujet de Soumaïla Cissé parce que Soumaïla si nous la man ak mm-hmm. te au mois de février quelques jours après modem, début campagne électorale ñu ñu ñu euh, donc. bu ñuy wax rek. loolu lañ mujjee wax maa ngi moom affaire su Cissé. ak président Macky ak Macky Sall. mais tout entre temps. je ne sais pas ñëwagum 2024 on est aujourd'hui 2022. li ma la mën a xamal daal mooy su ma yàlla mayee fanu gudd. ak hmm. wérgu yaram. Hmm. dinaa nekk candidat élection présidentielle 2024. te ñaan naa yàlla bu ma ko nekkee. Hmm. am ñeneen ñu ma jàppale. ñu dul ñu bokk UNP bokk jëmm. ñu dul ñu bokk suma parti rek. loolu la ñaan yàlla. sa sa mbokk libéraux yi est-ce que ñoom tamit newuñu di rumandaan que ni waaw nañ fexe taxawal suñu ku nekk taxawal parti à côté. mais loolu yëpp luñ mën a waxtaanee la Souleymane Ndéné Ndiaye mooy dem. ma ne loolu yëpp luñ mën a wax waxtaanee la fi mu nekk nii. Hmm. bu ma gisoon ci ñoom. Hmm. koo xam ne il est bien placé mieux placé que moi pour nekk candidat ba pare waxuma ne candidat rek gagné. Hmm. mën naa laa soutenir. te jàpp nga ne boo demee mën nga am dara. ah mën jàpp naa ko mën naa ko yoon wi mag président Macky Sall mën naa caa jaar. dellu Saalum. déedéet. Hmm. Saloum rek du ma base j'ai une base nationale. ah oui xam nga ba je dama faa mais je suis originaire du Jolof et du Walo. waa Guinguinéo moo la bu baax. c'est la ville de mon cœur donc. Hmm. man responsable national la boo demee Sinthiou responsable. Goudiri je suis fa responsable. Hmm. Salé Matar. Hmm. am responsable. D'accord. Si responsable. D'accord. Si dans le Fouta am responsable. donc euh, damay euh, élection présidentielle. Hmm. di circonscrire sa base ci benn localité ba nga xam fa mais am naa hmm. te moom laa la ñaan élection que ma gagné Sine D'accord.